Papa Ngagne Ndiaye mbokk yi ci boppu xibaar yi dañuy dikk ak yéen ci yaatal gi tàmbale ko ak doxub ñaxtu bi ñetti mbootaay fas yéene ko seq muy aar li ñu bokk ñoo lànk ak doy na ñoom ñëpp ca manifester gu ñu woote la euh, fële ca place bu obélisque li ñu bëgg nag mooy fexe euh, ba lépp loo xam ne daal ay ñaxtu la ñaxtu ñaxtuy jamono ji euh, ñu wesaare ko fa ngir mën cee am saafara loolu mooy ponkub seen doxub ñaxtu bi ñu bëgg amal li ci jaaxal nit ñi nag mooy ci jamono joo xam ne mbas mi mi ngi ci biir réew mi naka la ñuy def def euh, ba sàmmonte ak lépp loo xam ni mooy mesure yi ñu ciy jël maanaam ku ne euh, dànd sa morom ak i takk sa masque ndax loole dina mën a jàppandi ca fa nga xam ni moom moo di Euh, ci marche ba dañ ciy ànd ak Salimata Aw ci ay leeral. ñu fas yéene tey amal ab doxub ñaxtu ci ngoon mu nekk marche boo xamante ni ñu ngi koy amal ci jamonoy mbas bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur u FRAPP France Dégage yëg nañu situation bu fi nekk te dinañ jël bépp matukaay ngir maytandiku naka ministère bi santaane Guy Marius Sagna. sàmmanteeg euh, li waa kër docteur euh, wax ci loolu la ñu wax suñu ay mbokk maanaam suñu ay maam. novembre bu ñuy ñëw nañu euh, sol euh, seeni euh, masque ñaareel bi am na kuréel boo xam ne ci biir ñaxtu bi moo nar a fexe xool ba diggante bi war a dox diggante euh, ay nit muy euh, lu ñuy woowee distanciation en fait physique ñu mun ko sàmmanteeg ngir ñun ñi nga xam ne euh, ñoo am lu ñuy jooytu di ko métitlu di ko naxarlu ñu bañ a nekk ñi nga xam ne ñoo nar lawal feebar bi. docteur Omar Konaté moom gisewul nu ni mel moom nag mu xamal ni ab risque bu rëy la di amal marche ci jamono ji ñu toll. xam ngeen nekk pour xeex mbas bi mesure yi nga xam moom nañu njëkk a jël benn bi moom mooy euh, distanciation sociale bi c'est-à-dire euh, nit ñi euh, nañu sorante au moins benn un mètre ah un mètre nañu ni ñuy wax mais loolu xel xalaatu ko si marché yi marché yi ñëpp ñëppay sa mboxloo lenn duñ ko contrôler par rapport ak ak loolu bu sonn man loolu lu leer la si sama bopp c'est un très grand risque boo xam ne nit ñi donc ñu ngi koy jël dañ ko war a tere loolu moom euh, sama baat ci kaw. bu fekkee ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wér gi yaram ñi ngi am jàkkare bu rëy ci marché yi ñuy faral di amal ñii di organiser marché yi ñoom ni xam nañu bu baax jàngoro ji ni muy lawee kon nag duñu woo ay nit ba pare di bokk ci li lawal jàngoro ji. Euh, gannaaw marché ba ñu yemal foofu ca euh, Colobane ñu dem ca marché ba nekk ca caaro yi marché yooyu nag ñoom li ñuy wax mooy euh, dootuñu fay juuti juuti dañ koy fay saasu ne te seen marché ba ca salte la dëkk daanaka nawet bu ne ci jafe-jafe la ñuy nekk loolu lañu xam le ba tax daal ne ñu dootuñu fay juuti ndongo ka ci leeral yi. ci benn ci mbedd yi nekkee ci marché caaro muy doon ay jafe-jafe ngir nit ñi am fu nu jaar ndax ndoxi taw mi nangu yoon bi jëm borom saret borom auto ak tamit ñi yore puus-puus yi ku ci nekk di yoon wi ngir mën a njëkk a jàll njëkkante bi tax ba kenn mënta dem kenn mënta ñëw di am ci teewaayu agent de sécurité de proximité bi yore sifleem di régler circulation bi léeg-léeg bu yëf yi jàllulee mu koy jaral mu yuuxu ca kaw ngir ñu mën koo dégg mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi tukkee nag ci taw yu mujj yi tax ba marché yi nit amatul fu mu teg tànkam ndax salte lu nu mel daal dee merloo nag ñi di commerçant yi Dame di Dieng moom kenn la ci délégué marché bi gis ngeen ndox mi seeni dàll yëpp a ngi tax ripp te kenn solu ci dàll boo xam ne bu seerul gis ngeen ni aussi bàq bi fi la nit ñi teg seen i bagage di ko jaay assainissement bi baaxul produit ñi ngi yàqu les gens ne viennent bi dàq na ñëpp recette bi ñuy am journalièrement wàññeeku na ñun ñoo ngi bëgg a dee ñu ne nag léegi naam li am am na ba pare marché beeg xar kanam gi mu joxe léegi ay saafara nag la ñuy sàkku li ñu dal ci hivernage bi chaque année moo ñuy dal cadre de vie boo xam dina tax ñun le commerçant ki nga xamee ne moo nekk ci biro ba ñun duñ ko envier fi ñu jaay na set ñoom commerçant yi di artu nag ni dàquñu ngir daal dee dem ci gerewu au plus tard lundi incha allah bu nekkee ni situation bi décantewul ñun dinañ dem en grève pourquoi ñu fay juuti alors que ñun jaay ñu ba tey bu ñu sukkandikoo si ñoom ñu ni nag képp kuy kilifa tene ci gox bi te war a yëg lu ni mel ñoom yëgaloon nañ leen ko ndongo ka caaroy rajo Futur Média jërëjëf ndongo ka ñu dikk ci coowal rabu àll yooyu ñu naan Oryx ñi naan ko kéwél euh, du Abdou Karim Sall rek moo ci tax ndax rajo Futur Média ci gëstoom jàpp nañ ni Aly Ngouille Ndiaye itam euh, tax na ca ndax am na ñetti kéwél yu ñu ne moom jël na ko yóbbu ko ca toolu boppam loolu nag tax na ba président bu conseil départemental bu Ranérou euh, ne ak ku mën a jël ak ku mënta jël nañu fexe ba delloo leen seen i mala loolu itam tax na baskan wa nga xam ne ñoo dëkk foofa ca Ranérou fas yéene ci amal ab doxub ñaxtu altine lañ ko jàpp Mouhamed Ali Mouba buñ sukkandikoo ci président départemental Ranérou Abdou Karim Sall ministre de l'environnement du monde bénéficié mo bénéficier ci kéwél yi réserve bi mooy que nee ñi euh, fukk ak ñaar lañ jël donc euh, ministre Abdou Karim Sall euh, six la ci jël am na ferme bu nekk ci Mbour beneen ferme ñoo ñu yóbbu na ñett am na beneen turu ministre bu ñuy wax aussi jël na ci ñett donc nag loolu mooy information yi ñu mujj jot quand bi ñuy transféré kon kéwél yooyu am na ñoo xamante ni dañoo de ñeneen ñi gaañu Aliou Dembourou Sow jàpp ni li waxaan li nu mel jàppin bi moo baaxul. waaw xam nga comme amuñu matériel bi ne moo war mooy maanaam euh, ay euh, bal yi nga xam ne day am NST yi nga xam ne boo ko tiiree gaz mooy euh, dem ci yaramu rab bi nga mu mun a tëdd nga tënk yóbbu ko fekk benn fitna du ci am yooyu yëpp amuñu amul woon donc comme loolu amuñu ko woon nag dañuy utiliser ay moto Jakarta ay buum ay kii donc yooyu yëpp fitna la te rab la yoo xam ne dañuy noble tellement que soo leen buntu xataale sax ñoom ci seen bopp dañuy xaru ku leen xam donc nag xaw ma nag ku leen na la dañuy xaru. buñ sukkandikoo ci Abdou Karim Sall nekk kon ministre de l' environnement déplacement kéwél yooyu dañoo bëgg kon protéger espèce bi ngir mu bañ a nax saay président conseil départemental Ranérou jàpp ni loolu taxawul moo tax ñu ngi exiger. ñu delloo yooyu donc euh, du benn nit moo ko moom du Ranérou moo ko donc mais dafa nekk ñi dañ ko dañ ko Ranérou rek mais comme ñëpp ko bokk nañ ko delloo si rek. waa nag fu mu toll ni ñu ngi concerté wu xool naka la ñuy marché def marche ci alteneen ji naka noonu itam ñu ngi ubbi pétition ngir ñaawlu lu Abdou Karim Sall ak yeneen ministre jot a def ci Ah, ñu dem ci leneen mu aju ci ah, ñi di ah, waa sud juste di syndicat bi am bi ñi liggéey ci wàllu tribunal yi ñoom nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu dialogue sociale di Innocence Ntap Ndiaye xam ngeen ni wax na fii ci rajo Futur Média ne bëgg na waxtaan dox diggante liggéeykat yi ak jëwriñ yi waaye nag syndicat bi ka ca bopp ba li mu xamle mooy loolu moom dana ko jaaxal ndax ci jamono ju ko jëwriñ ji di tëkku ci la bëggee ñu waxtaan dañu déglu maître Aya Boun Malick Diop am na ci lu mu dénk Youssouf Bodian madame Innocente Tab euh, Ndiaye wax nañu ko moom mi nga xam ne mooy euh, président du haut conseil du dialogue social waaye nag loolu il faut ñu dëggal ko jëmmal ko te loolu li koy def mooy ministre de la justice envoyé ñu convocation en bonne et due forme parce que ñaari kilifa bu ñu war a daje il faut am ku ko sàkku te nag fii moom moo ko war a sàkku ndaxte ñun du ñu déposé préavis de grève te yoon dafa ne boo déposé préavis de grève ci biir weer ba ba nga ko déposé ministre de la justice employeur yu war na la woo ñun nag bañ ko déposé 6 février ba léegi ñu ngi toog di xaar kenn woowuñu kon boo kenn mënuñoo dem kenn mënuñoo binduloo ay demande d'audience donc ñu ngi toog di xaar bu ñu woowee incha allah nañu sol suñu daal dem foofu waxtaan fa ndaxte ñun loolu rek moo ñu ñor. démb dafa am benn waaye ju ñuy wax euh, Seyni Mbodian moom mooy euh, président bu bees bi nga xam ne mi ngi doog jël euh, service matul sa weer Fatick. moom daal moo ma yónnee par voie d'huissier benn demande d'explication ne ak mise en demeure. waaye ñun dañoo jàpp ne loolu yëpp euh, ay la ak xoqatal yoo xam ne ministre de la justice moo ko sant pour euh, randal ñu ci nga li nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne ñun ñu ngi koy xeex fan yi pour suñu dëgg ak suñu àq ak suñu yelleef li ci ñaaw mooy Ah, gis nañu ne ci ay caaxaan mën nañu ci dugal ay juge ay attekat yi nga xam ne ñoom du ñuy xaar seen euh, ci ñoom ñu nekk ay nit ñoo xam ne duñuy dëggu ba ñu dugg ci ay euh, caaxaan ak i maguy ndaxte gis nañu ku ñuy wax euh, Ousmane Kane mooy premier président cour d'appelu Kaolack moom moo njëkk bind benn lettre boo xam ne boo xoolee ba xool da ngay leen luñ ko sant bind ci ne man dama absenté te nag day wane ne sunu justice bi indépendance am des na. Ah, ñu wax ci wàllu campagne agricole bi wax ca mairie bu Ngayen Sabax ca département bu Nioro ah, foofu nag ñoom béykat yi bind nañu gouvernement bi sàkku ñu mu gaawee leen engrais ah, gannaaw lépp loo aju woon ci wàllu jiwu lépp jàppandi na fii ñu toll nii seen yitte mooy engrais te dafa war a gaaw Gumba gay am na ci lu mu denk Ibrahima Jàmme nawet bi dam na taw bi macha allah yaatu na am na yaakaar mais li ma moo di que ne liñ seetlu mooy état bi def na effort engrais subventionné mu indi ko ci àll bi ñu ngi koy jël waaye gis nañ ne ba tey effort bu mu mën a mën a def engrais bi du mën a doy may jàpp ne effort bi ñu ko jëloon renforcer ko subvention bi ci engrais bi mu poids bi gën a yokk paysans yi di am engrais bu doy di am urée bu doy ay at ci kanam dootoo dégg ko wax ay problème nit ñi dañ mën a bayal seen bopp amal seen bopp dara. engrais bi nag fu euh, euh, ñu koy. jiw bi aussi tey ce wàccee gerteem dugal këram dana jël poids gerteem jiwam denc ko ci këram xolli ko defar ko ba mu baax xaaru état béykat yi xaaruñu état ci jiw état engrais subventionné donc la ñuy xaar ci moom ak urée donc loolu il faut que état xam ko am na ci loo xam ne ñu ngi koy dugal ci àll bi gi semence xam ne ñu ngi koy dugal ci àll bi naan béykat yi béykat yi béykat yi li ñu soxla du loolu li ñu soxla mooy engrais bi urée bi pois bi yokk subvention bi gën a yomb béykat yi man accéder à ces produits là pour valoriser le vraiment le kii ci mbas mi di coronavirus bi ci la dikk daal ndax gis nañu ay jafe-jafem mi ngi gën di tar jamono ji démb daanaka ñeenti nit ñàkk nañu ci seen bakkan li ñu faatu nag bu ñu ko xaymaa ci bisub tey bi toll na ci téeméer ak juróom-benn fukk démb rek juróom-benn fukk ak ñett ñoo amee jàngoro ji ci limub ñi ñu saytu toll ci juróom fukk ak ñeent docteur Mamadou Ndiaye lañ ciy déglu ci leeral yi. ci test yi ñuy def juróom-benn fukk ak ñett. ñoo ci positif ci ñooñu am na fanweer ak ñeent cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi am nañu ñeent ka importé mooy ñu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de jas mu am ñaar fukk ak juróom cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo yore doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Richard am na ci juróomi cas Mermoz am na ñaar Thiès am na ñaar Tivaouane am na ñaar Bignona am na benn Dalifort am na benn Diourbel am na benn Guédiawaye am na benn Kédougou am na benn Liberté 5 am na benn Mariste am na benn Nord am na benn Waaguñaay am na benn parcelle assini am na benn Pompier am na benn Pikine am na benn Rufisque am na benn Ziguinchor am na benn bés ni ki tey bi dalee ci kaw bu njëkk ba Sénégal jot na wàññi juróom-ñett junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent wér nañ ci téeméer ak juróom-benn fukk ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaari fukk ak ñeent ministère de la santé de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne am nañ ñu wàññeeku ci seen mbokk ñi entré woon hôpital te di ñaanal ñi des yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm Euh, certificat test Covid 19 négatif loolu nag mooy ki lépp loo euh, maanaam euh, certificat boo xam ni la faaw nga koy wane bu fekkee bëgg ngaa duggati ci roplaan jëm bitim réew loolu nag ñu war cee fay ay koppar directeur bu laboratoire moom moko ko leeral ci indi leeral yooyu moom professeur Amadou Mokhtar Dieye am na ci lu mu dénk Awa Mbaye ñu teewlu ko. test du état du Sénégal moo ne kuy bëgg a jóge Sénégal di tukki da nga war def test. da ngay fay lii dëkk yi nga xam ne fa nga jëm dëkk yooyu ñoo naan boo bëggee ñëw suñu dëkk da ngay def test bi am na dëkk yu koy demande am na dëkk yoo xam sax demandé wuñ ko waaye loolu voyageur bi pour mu xam ci dara day laaj compagnie aérienne bi compagnie bi dana ko wax ni dëkk bii nga bëgg a dem de dañuy laaj test bii la ñuy laaj donc fokk nga def test bi bu ko defee état Sénégal ni sénégalais yi wala ñeneen même buñ dul ay sénégalais mais ñi nekk Sénégal bëgg a voyager test bi mën ngeen ko defee institut Pasteur mën ngeen ko defee IRSF mën ngeen ko defee laboratoire hôpital militaire de wakam wala laboratoire bactériologie virologie bu hôpital Aristide Le Dantec et que test bi juróom-ñetti junni lay jar waaye juróom-ñetti junni yooyu laboratoire la koy fay du ministère de la santé la koy du Sénégal la activité pratiquement privée bi nga laboratoire parce que laboratoire boobu réactif courant fay donc vraiment du ministère bi mooy jël xaalis bi wala du Sénégal is ko fii di ngeen ko dégg muy kuréel gu yittewoo ah, naka la ñuy def ba xale yu jigéen yi mën a des ci daara yi di jàng ñoom ña nga ca ndar ah, jamono ji nag ñi ngi xool naka la ñuy ñaaxee ñi nga xam ne ñooy élèves yi ba ñu mën a mucc ci jàngoro ji di jàngoroy mbas mi eh, Mouhamed Nabi Sila lañ ci àndal ci benn leçon de vie ci le SCOFI doore jàngaleem ngir gone yi respecter gestes barrière yi lay Madame Sow Mariam Diagne je suis la présidente du comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles de l'IEF de Saint-Louis commune nit ñi dañu xaw bàyyeeku mais ñu nan lay def nag pour sensibilisation bi nit ñi gën a jëlaat les choses en main ñun dañuy dem ci école yi wax ak xale yi ndax xale yi la plupart du temps boo jaaralee si ñoom information ñoom buñ ko génnee ci quartier bi génne ko ci gox bi génne ko ci kër yi waajur yi daañu jël les choses en main. lu ni mel am solo ci gëtu papa Amadou Gueye secrétaire général bu IEF bu Ndang xam le ni lu ni mel dana indi saafara ci bàyyeeku bu ñu nemmeeku woon. Euh, ñëpp remarqué nañu fii ci Ndar waaye tam fii ci Sénégal lépp que ni temps yi daal dafa yi dañu bàyyi seen loxo donc nag situation su amee ñu gis est-ce que fii ñëw pour ñëw jàpp jàpp ci fexe ba nit ñi jàpp taxawaat

Euh, toogaay bi dafa yàgg ba nga xam ne bëri woon na xale jigéen yoo xam dañu dem commencé def leneen ñii dem naan pour pour dimbali seen waajur ñii dem ci centre de formation yi ñii dem ci ay ay ay centre de sauvegarde yoo xamante ni fa lañ nekk léegi pour am benn métier wala benn xam-xam bu ñu am tey nag fii di woo bu baax a baax ñëpp ñi yëngatu ci wàllub lekkool ngir ñu jël seen matuwaay ngir xeex mbas mi ba faw RFM ci ndax géej Mohamed Nabi Silla ah Mohamed Nabi Silla jërëjëf buñ ñu bàyyi ko foofa ca bët gànnaar dañuy dem ci bët Saloum ci diwanu Fatick xam ngeen ne ñaar fukki fan ak juroom ah, ci wëru soin ci lañu ñu ubbi woon ah, école yi nak ah, jagleel ko ñi amal examen fële ci diwanu Fatick gis nañu ne ñi di ndongo yi nak ñi ngi respecté lépp mo lépp li nekkon charte yi ñu leen tegoon ci fexé ba dandante bi am waye fexé ba itam ñuy tak seen masque donte amna ñenn ci ñom ñoo xam nak duñu matalé lolu loolu Aminata Goudia bi ci leeral yi lycée Coumba Ndoffène Diouf nak boo fa duggee ci jamono yi li ngay ñëk gis moo di ñetti l'avant yu ñu tek proviseur bi ci jëmmi bopam ñu fekk ko mu yor ñaari thermoflash kuy duggu nak ci école bi élève ak professeur ño ci yam day vérifier sa température mu ni nag noonu lay défé ba ñu tambalé waatee di jang ba léegi Mamadou Ndiaye. ay 7h 17h15 laay yegg si man toujours man man je me suis imposé ça moi-même en tant que chef d'établissement. en tout cas ñu ngi def suñu katan pour ñu respecter gestes barrières yi. dañu contrôler aussi seen température chaque matin bu leen leen man 527 élèves de terminale donc voyez comment le travail est très difficile. ben jafé jafé nak bi nga xamni mom lay jankontel sa su nek néna daf ci am élèves yo xamni duñu nangou di sol sen masque ku ni mu waree. Eh, mettez vos masques là mettez vos masques. xam nga nak adolescents yi mom dañu xaw a ay gérer. xam ci biir classe ba mom c'est une obligation. biir cours bi lañuy amé difficulté yoy exemple bi sax ñu gis ko ci ben élève terminal bu jigen bu taxaw solul am biñ ko lajé liko waral li la tontu. parce que dafa xat tamit dafay metti soo nekkee classe wax dëgg yàlla dañ ko mën a sol parce que professeur sax dañ naan la sol solal masque mais tamit dafay métti. école élémentaire Serigne Khaliña bi nga xam ne itam moo nekkee ci biir commune bu Fatick bañ fa demee wax nañu ni benn bàyyeeku amul tasu nekk nag ñu ngi ciy ñaax xale yi Sambou Ndiaye moom mooy directeur école boobu la. équipe pédagogique mu ngi fii pour di ci loolu à tour de rôle dañuy jël kii gérer thermoflash bi kii gérer lave-mains bi kii gérer euh, le respect de la distanciation. lii nag wuute nag li nga xam ni moom la amical des stagiaires et étudiants du département. département de Fatick nemmeeku ci yeneen gox yi nekkee ci région bi ñoom nag dañu ni yooyu boo fa demee dispositif sanitaire bi matul ngir aar xale yi ci jàngoro coronavirus Aminata Goudiaby Fatick RFM bi bitim réew Georges de Diop maa ngi lay delu nuyu. maa ngi lay fay Papa nga Ndiaye. xibaari bitim réew dañ koy tambalé ci Mali CDAO e mom duggal nañ ci seen loxo ngir am M5 amna ñent ci ay conditions yu Tel ci table ji. té li ci di du yombal mbir yi du yombal dox tank jàmm yi euh, bok na ci yoyé condition mouvement M5 tel la gën sakku ni Ibrahim Boubacar bu Ibrahim Boubacar Keita jóge ci bopp réew ma Fama jonne M5 RFP sàkku IBK mu tekki ndombal tànkam ni ki régime ñoom nag bëgg nañ ñu ubbi ab transition républicaine ak i enquête judiciaire ngir ñu mën a yóbbu fa mbaxane doone benn képp ko xamante ni taq nga ci lépp lu exaction ak faat bakkan gi nga xamante ni def nañ ko te ñu teg ko ci kaw manifestant yi ginnaaw loole sàkku nañu ñu bàyyi ki nga xamante ni mooy chef opposition ba di Soumaïla Cissé rassemblement bi nag jàpp ni Ibrahima Boubacar Keïta dafa lajj ci domaine yu bari mënul indi ab solution ci crise bi nga xamante ni moo nekk ca Mali waaye it président bi mi ngi jëfee noo xamante ni bu ñu moytuwul Mali dina dugg ci ab guuta looloo waral nag rassemblement des forces patriotiques daal di ne IBK lu munti xew ëllëg moom la bokk na ci kaaraange réew ma waaye tamit ñàkk sàmmante ak chartu réew ma bokk na ci it ñàkk sàmmante ak ak yelleefu doomu aadama yi. délégation CEDEAO boobee di wéyal ay waxtaanam ba léegi ngir jàmm dellu foofu ci Mali ci suba. daje nyok nyom ñoom ci seen wàllu bopp sax ci seen biir ñoom waa CEDEAO waa Union africaine ak waa Nations Unies daje nañ suba ba léegi itam daje nañoo ak ñi nga ne waa M5 lak ak majorité présidentielle ndaje bi nyat ñett ñoo ko seqoon. Euh, ca Guinée bi euh, Guinée la ñu jëm Guinée euh, Bissau foofu moom mu mel ni doxul ci Omaro Sissoko Embalo ak Aristide Gomes. njiitu réew ma jamono ji di Sissoko Embalo mom nee dana yobu Aristide Gomes ca yoon fa dafa nekkoon euh, premier ministre euh, de ko dafa tegoon tuuma ci ndoodam ne day waajal ab coup d'état kaddu yooyu mu ngi ko yëkki woon euh, ci jamonoy campagne électorale ba Noamankali Qui interview bu mu accordé ci RFI ci France président Bissau Guinée Oumassi Sissoko Embaló moom dafa déclaré ni dafa nek di formaliser ben plainte pénale contre ancien premier ministre Aristide Gomis a maintenu ci campagne électorale quoi def ko accusé on dafa bëgg def coup d'état contre président José Mario Vaz général Oumassi Sissoko Embaló dafa leeral ni ñi fu mu ni formuler plainte bobu contre citoyen Aristide Gomis ndax kooku def ko accusé on, bu mu candidat qui élection présidentielle waaye léegi dafa am droit pour mun défendre Bopam. buñ ko qui ci topp yoo xamante ni moom la ñu nekk di def député ak blogueur Fiti ci guinée chef de l'État Oumar Sissoco Embaló moom dafa déclaré fi ci Guinée-Bissau amul persécution politique xamante maintenir nañu ko gis waaye tamit gine bi saw dafa nekk réew boo xamante ni réew bu démocratique la ñu mu ko wane Oumar Sissoko Embaló mu ne amul benn député koo xamante ni mu ngi koy topp ngir idée am waaye Guinée Bissau réew la boo xamante ni réew bu démocratique la ni mu jeexalee Oumar Sissoko Embaló ñu waa bi Bissau RFM. ca Côte d'Ivoire moom premier ministre ba euh, Amadou Gon Coulibaly tey lañ koy denc euh, ca Korogo euh, foofee la fekk baax Amadou Gon Coulibaly niñ koy roppee njabootam kott ñoo koy fekkee Amadou Gon Coulibaly mu ngi génn àdduna juróom-ñetti fan ci weeru gii nii bi mu amee ab malaise ca conseil des ministres ñu yóbbu ko ca l'hôpital mu mujjee fa fatou ca Maroc moom ñi bokkee ci gouvernement bi ak yenn ci fonctionnaire yi dañ leen tere ñu dem vacances biti réew loolee li waral ñoo bëgg a suqali koom-koomu réew mi surtout secteur tourisme nga xamante ne crise sanitaire bi di coronavirus dafa dal ci moom Xadim Mbay benn ministre sañu te dem bitim réew di fa def ay vacances am ci été bi waaye nag du ñoom kese ndax ñi nga xam ñooy kilifa yi nekk ci administration publique ak tayit ñi nga xam ne sax dañoo bokk ci collectivité territoriale yi ñoom tamit dañu leen a tere njiitu gouvernement bi di Salahidine Al Otmani génn na sax bataaxal di leeral ci ni li nga xam ni moo di dogal bi dina dem ba atum 2020 di di jeex lii nag bu ko Maroc jëlee dafa fekk ni dafa bëgg soqaliwaat suqaliwaat économie bi waaye te jàppale bu baax a baax li nga xam ni moo di secteur touristique bi mu moomee sax li ni mbas mi daf ko sonal loolu te it nag yooyu jamono dafa fekk ni ñi nga xam ne ñoo di turist yi di bàyyeekoo bitim réew ñoom bàyyeegul leen ñu dugg si fi nga xam ne moo di royaume chérifien ba tax na li nga xam ne moo di ay ak yenn xeeti événement yi nga xam ne administration publique ak ñeneen ñu ni mel ñu ko daan organiser dañoo santaane ñu koy def ci nga xam ni moo di établissement touristique yi nekk ci région yi te nag bi la dogal balaa woon Maroc doon ko jël ki nga xam ne moo di office national bu tourisme jëloon na ay dogal yu am solo ay promotion bu ko defee askan wi mën a génn dem defi li nga xam ni moo di tourisme fii ci royaume bi Xadim Mbaye Casablanca rajo Futur Media. foofee la ñuy yemale xibaaru bi tiré Papa Ngagne Ndiaye. Ah, Georges Déthié Diop jërëjëf ñu daal di dikk daal ci jukkib tàggat yaram fas yéene ci ànd ak Soxna Soda Thiam. ñu dooree ko ca Espagne ak Real Madrid ma nga xamante ni niki démb gannaaw ba mu daanee villa Villarreal ñaari bal ci benn ci ab doublé bu Benzema daal dinay nekk champion bu Espagne ci noonee la Real Madrid daal di jëlee fanweer ak ñeenteelu titre am ci gile compétition te moo ni de Real Madrid Barça moo ko rawee woon ñaari poñ laataa ñu doon arrêté championnat bu Espagne waaye nag depuis ba ñu tàmbali waatee ba léegi équipe bu Zinedine Zidane bi dafa daal di tegle fukki ndam ci fukki jongante yi nga xamante ni moom la daal di amal daal di gàddoo titre bi technicien français bi niki démb itam moom it la daal di gagné ñaareelu titre am en tant que entraîneur te moo ni de woon na ñu dàq ko ci weeru octobre waaye gannaaw ga nag moom Zinedine Zidane dafa daal di wëlbati mbir mi ci njàppandalu ay joueuram gannaaw ba mu tegee ay yoxam nag ci titre bi moom Zinedine Zidane daal nay xamle jafe-jafe yi nga xamante ni amoon nañ ko ngir mën a nekk champion bu Espagne waaye itam importance bi nga xamante ni Sergio Ramos am na ko ci biir équipe bi waaye nag ni démb ca jamono ja nga xamante ni Real mi ngi doon daan Villarreal ngir jël titre bi FC Barcelone moom dafa daal di ndërmeelu ci kanamu Osasuna mi ko daan ñaari bal ci benn ci noonee nag attaquant argentin bi di Lionel Messi moom dafa daal di amoon lu ko métti trop gannaaw ba Barça daal di ñàkkee ca noonee sax moom ci la daal di xamle ni que ni match contre Osasuna dafay wone ni seen saison tëddee ci at mi ne seen équipe néew na doole waaye itam jamono ja nga xamante ne ca la war a gën a wane xadaram du ko fa Real Madrid nag moom la ko waroon def na ko moo di gagné match yëpp ba ñu tàmbale waatee championnat Espagne ba léegi ñoom waa Barça nag ñàkk nañ ay poñ yoo xamante ni waruñu ko woon a ñàkk kon nag ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp waxtaanaat seen biir ca Angleterre ni ki tey jii nag daañu ndar kàpp fanweer ak juróom-benneelu bëccëg bi ak benn jongante képp bu 19h jotee diggante West Ham ak wat Watford lay doon attaquant brésilien bu Arsenal bi di Gabriel Martinelli moom nag nga xamante ni dafa amoon càmmoñ bi du mën a amalaat jongante ba fii ak njeextalu atum 2020 Manchester United moom it ba mu ko daanee ñaari bal ci dara ci noonee nag ñoom ñoo ñu dippee les Red Devils daal dinañuy tolloo ay poñ ak ki nga xam ne moom moo di Leicester mi nga xamante ni moom la ñuy xëccool place ngir mën a dem ci Ligue des champions atum ca Italie Inter nag moom ni ki moom it daal dinay am ndam ci kaw Spal mi nga xamante ni moom moo mujjee ca championnat bu Italie ñeenti bal bal ci dara la ko daal di daan ci noonee sax moom moo daal di tax ñoom milanais yi daal di ñëwaat ci ñaareelu place ba nga xamante ni Atalanta Bergame moo fa toogoon ca France Paris Saint-Germain nag dina daal di amal ab jongante xaritoo ak benn club belge boo xamante ni wàcc na ci saison bi ci deuxième division mu di was Waslan Beveren ci Parc des Princes lay amee jongante googee nag dañ koy daal di xaaj ci ñeenti période yoo xamante ni fanweeri simili lay doon lañ cey wut nag moom moo di fexe ba joueur bu si nekk mën a jouer diiru benn waxtu Soda Thiam jërëjëf ci yi mbas mi aju ci wàllu Coro News la ñuy ànd ak Soxna bind Diallo. tey ci àjjuma ji mu mel ni Covid 19 bi dal na ci kaw fukki million ak ñeent doomu aadama bi ci àdduna bi yépp boo demee États-Unis mu ñi am feebar bi daanaka jéggi na dayoo. romb na juróom-ñeent fukki junni doomu aadama ci bésu tey gii rekk bilan bi itam noonu la tare ca Brésil am nañu kaa yu bees yu bare bari réewu Bolsonaro bii nga xamante ni moom mooy président euh, Brésil te itam ñu teste woon ko ñu ni am na coronavirus juróom-ñaari fan ci weeru juillet ba leen ñu génn romb na ñaari million doomu aadama yu am feebar ba boo demee ci Europe ci Italie mbir yi mi ngi yokku waaye bareetul noonu bilan bi yokku na moom bu baax ca Angleterre Espagne ci benn bés bii rek am nañu juróom benn téeméeri doomu aadama yoo xamante ni yu bees am nañu feebar bi Chine tey jii daanaka kenn faatuwu fa te Allemagne nag moom am na juróom ñaari nit ñoo xamante ni faatu nañ ci ci bésu tey jii rek. ca Portugal kaa itam noonu lay bare ca Lisbonne ca capitale ba nag la gënee wulee ñaay épidémie bi mi ngi yokku ca Mexique boo demee ci Iran naka noonu mi ngi accéléré accéléré boo xam ni jaaxal na sax autorité yi ca Russie. situation ba noonu la mel Moscou di capital ba dafa mel ni fa feebar bi tare juróom benn fukki cas yu bees am na ca Corée du Sud ca Pérou ñoom ñi ngi génn ci seen confinement ba waaye nag fekk Pérou ñëpp xam ne ñi mooy juróom benneelu réew ci àdduna bi bi nga xamante ni fa feebar bi ëppee Inde naka noonu ma ngay gën di law boo demee ca Chili noonu la mbir yi mel Égypte cas yi ñi ngi gën di yokku toll nañu ci juróomi junni nit ñoo xam ne faatu nañ ca ca Égypte Japon moom mi ngi gën di am feebar ba foofa état d'urgence ba daal dinañ koy yokk ca Maroc état d'alerte ca Roumanie Algérie nag moom mi ngi am cas yu baree bare yoo xamante ni xamul nu muy def waaye mi ngi continuer di déconfiner wu maanaam di génn ca kër ya continent bi boo demee virus baa ngi fa itam ci Afrique du Sud dafa mel ni tey jii rek ci ajuma ji am nañu ñaari téeméeri nit yoo xamante ni gaañu nañ fa état d'urgence ma ngay wéy ca Guinée Guinée Conakry soo demee ca Mali téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya daanaka am nañu feebar ba ci capital ba di ko ki ko wax nag mooy ministre Mali bi yor wàllu santé Mali nu mu tëlee faj feebar bi dafa mel ni noonu lañ tëlee itam faj ko ci Sénégal ndax saa suñu yeewoo ñiy faatu mi ngay yokk tey ji ci si àjjuma bi ñeenti doomu aadama ñàkkaat nañu seen bakkan. jërëjëf euh, soxna Binta jàlloo ci Coronews dañuy dikk dal ci reportage yu tabaski gi euh, muy reportage bi ñu leen euh, jagleel daanaka fileek ñaari ay bés ñu di ànd ak yéen tey ñu jagleel ko wàllu sañse bi ndax tabaski du xar rek sañse itam ci la bokk ñu gis nag ne bazin mooy tendance bi ren si Sylla lañ ci àndal. bazin bu VIP

crochet dugal jour garniture. ca benn tali Basiro ak Cheikh Mbacke Fall di yeneen ñaari tailleur nit ñi taamu leen loolu li ñu seetlu nag mooy basin bi moom la ñu gën a taamu rax ci dolli tabaski bi nag donte sax corona baa ngi fi ba tey client yi ci la ñu gën a bëri que korité bi. tabaski bi moom nit ñi moom Sénégal moom jésneer lañ xewal. góor ak jigéen yëpp presque ñëpp jésneer la ñu ñëwal. par ak korite ak tabaski mën nañ ne tabaski bi moo tane tuuti korite moom li yàlla xam doy na tabaski bi nit ñi ñëw nañ tuuti tuuti mais par rapport ak ati yi moom sant yàlla rek daal sant yàlla daan na gën a neex nii daal basin riche bi daal moo gën a bëri quoi desineer am na mais basin riche daal xew na trop am naa ne moom moo gën a xew daal boobu moom mooy tendance bi quoi bu dee jigéen ñi robe la ñuy def wala taybaas bu dee góor ñi moom ñu ngi koy def ay demi saison yu rafet. li ñu sétlu nak ñom moy at bile daamina bëriwul loolu nit ñi li ñu gën a farataal mooy simple rek daal di dem lolé nak arrangé wu la benn yoon ku ci melni tailleur yi la Cheikh Mbackeek sofia Sow. boy xol nak loolu nonu ñun ñun baaxul ci ñun tailleur yi parce que danaka mën naa wax ne tailleur damina moko ko doon may xaalis parce que booy xool benn benn jëndi jeesneer ñew jox ko tailleur bi bu dé simple kese do weesoo moom 10 000 francs bu njëkk ba au moins ku la jox bazin lu mu gatt gàtt dina génné benn 40000 wala 50000 francs kon kon la jaaxal nañu booy xool sax benn côté bi simple bi tane na tuuti mais daamina bi itam moo ko bénéfice daal moo ko bénéfice si nañ doon gën a génn ka par rapport ak simple bi. lenn daal mën nañ ko gis ni avantage la ndax lii di ñaw simple bi dana tax di nga am tàng bu bëri bëri boo xamante ne tailleur bi dina mën a ñaw ba daal di joxe commande yépp à temps te du ci am amaana benn histoire ak client yi. Euh, yéene kaay yi Mamadou ci àndal ci na ngeen jëf fa digle ca ngaay ba noppi te doo laalum ndox loolee la Macky def ci mbiri déclaration patrimoine gi mu sant ay ministre ay nit di kilifa ci réew mi ñoo ko wax ci l'observateur kenn ca di neexi tubaab Abdoul Mbaye premier ministre u ba woon njiital acte gi ne li ko jaaxal ci acte yi Macky Sall teg bari benn ca moo di lu tax mu bàyyi ba waa inspection générale d'État joxe seeni rapport bu nuppi muy soog a soññi ministre am ngir ñu dem ba di lu tax mu leen di yàppal ñeen fukki fan ak juróom ci loo def yàgg na ñetteel ba di lu tax moom Macky Sall mi koy santaane defu ko te waroon cee jiitu ndax bi ñu ko falee dafa dem déclaré ji patrimoine ca conseil constitutionnel waaye ba ñu ko falaatee 2019 ca jëm ba léegi demul ca conseil constitutionnel déclaré ji fa patrimoine am El Hadji bu parti Pastef ne waa l'observateur li Macky Sall sant ay ministre am safeetul ndax bu bëggoon a yoonal mooy njëkk a tege ci yoon mënee suta wooteeg mbaax ba noppi di des ginnaaw njiital di Abdoul Mbaye jëlaat kàddu gi ci l'observateur coowal lay doon du ñàkk ñu dem defi ko waaye dina am ñoo xam ne du jaar ak tànk ci OFNAC ba naan ñoo ngi déclaré ji seen patrimoine waxi déclaration de patrimoine ak président Macky mi ko suli ba cay soññe ci la enquête xëy sof ci xëtamu njëkk la mu ci gis moo di mbir la moom yëkkati nañu ko waaye bu dee amit ku gàttu fan doo ko fekkee am na ay ministre de la république yoo xam ne dem defi déclaration de patrimoine ci OFNAC wareef mu di lool bu ñu ko doon xayma téeméeri nit yu ko war a def ña ko jot a def matunu juróom fukk fukki nit ak ñaar yi ma sa dégg ci réew mi monsieur le premier ministre journal La Tribune xëy na leen dajale ba wax ñu ku ci nekk li ngay dund ginnaaw ndombal tànk premier ministre ak it koy dundee ku ci nekk ci ñoom li muy dund ginnaaw ndombal tànk premier ministre ak ni nga koy dundee yéenekaay bi xëy nañu ko wax doore ko ci Abdou Diouf Habib Thiam Moustapha Niass Mamadou Lamine Loum Mame Madior Boye Idrissa Seck Macky Sall Hadjibou Soumaré Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoul Mbaye Aminata Touré ba ci Mahammed Boun Abdallah Dionne mu mujjee dégg premier ministre yi ci Sénégal ñoom ñëpp ñoo ngi ci yéenekaay bi yéenekaay yeneen yu xëy ci leneen moo di Le Témoin Le Quotidien ak Libération giitangaas gi am ci diggante Sénégal ak Union européenne te mu tukkee ci mbirum espace Schengen gi ñu tëjal réew mi ba léegi loolee ñoo nga cay wax Le Quotidien wax ñu ne réew yi àdduna yi ñu tëjil espace Schengen yi Sénégal bokk gu ci ba léegi kilifa yu Sénégal it mel ne ñu naan waa Union européenne nañu ci dem du ngeen ñu ko dàq ku nekk na nga téye li nga am li ci am Le Témoin jàppee ko guerre aérienne bu yooyu ba léegi ci diggante Union européenne ak Sénégal libération nañu moom kay ñaari wàll yi ñoo ngi ci ab defante bu rëy waa union européenne ba léegi génnewuñu sénégal ci réew yi ñu tëjal espace Schengen bi senegal ñoom it nekkoon nañu ci dem ngàtt genn ngàttaani genn a koy fàcc ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall la ne kay nee nañu moom it sama ngay defante lu rëy ak Aya Boun Malick Diop secrétaire général bu syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon di SYTJUST journal bi nañu jox nañu ko ab demande d'explication jëlub mise en dollil ko ci lu ni mel moo waral journal las gis ne maître Aya Boun Malick Diop bu amuti mbokk ci raje ko ci lu ñu jëm lu jëm ci woppi coronavirus gi am ci réew mi sursoi bi ne na ci xët mu njëkk ne wopp ji ak i lorangem ñoo nga ci seen digg doole téeméeri cas corona yu yees ak fukk ak ñaar la ñu am démb ñetti nit yu faatu ba tax léegi ñoo ngi ci 156 décès ak fanweeri malaat ak juróom-ñett yu nekk Sowetaas l'observateur nañu ñoo ngi jëm ci tabaski waaye li wéer te moo di tabaski gren gi mënee su ta wax ba dee su ko bokk coronavirus bi te li tax narut a jur jàmm moo di ba fi ñu toll amul benn plan de prévention wala plan de riposte boo xam ne dégg nañu kilifa yi amee wàllu wér gërëm ci réew mi teg ngir gunge ko askan wi ci tabaski gi ñu jëm fukki junni di 50 moom la justice fayloo waa ji di Mame Ngor Mbengue li ko indi journal Source A mi ko bind nee nañu moo di Mame Ngor Mbengue boolu mbaxalu keccaxu baayam la tuur bàyyi ba yóbbu ko tribunal tribunal atte ko daan ko alamaan ko fukki junni yaay ci yéenekaay yi dañuy tàbbi nag ci gis-gis gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaane tey moom mooy dogal bi euh, Union européenne di mbootaayu réewu tugal yi jël Euh, te muy dal tëjal sen jaw euh, muy walu dem bi ak dikki bi Sénégal Sénégal itam naka noonu daal ñom itam japp ni euh, dañu tej ñom itam sen jaw ñi nga xamni ñoy ñooy mbootaayu tugal yi ponk bobu lañu ñu fas ci ko nak dinañ ci and ak Pape Diouf mon directeur général bu agence sénégalaise bu promotion touristique nañ ci and ak Mamadou Kane moom jàngalekat la ci université bu Thiès nekk secrétaire général bu association acteur yi yëngu ci wàllu tourisme am na itam yeneen i ndomb tànk xam naa jombul dinañ ci dikk euh, bu fekkee jàppandi nañ maa ngi leen di nuyu euh, maa ngi lay nuyu monsieur Diouf Pape Mahawa. Euh, jërëjëf sëñ bu baax a jërëjëf maa ngi nuyu Mamadou Kane monsieur Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di maa leen di fay. voilà monsieur Diouf Pamao Mao yow lañuy ñuy tàmbalee waxtaan bi euh, muy dogal bi nga xamni bu jëk dañu japon ni biko Union européenne njëkkee jël dañu japon ni xeyna dañu dañoo juumoon euh, ci euh, bañ a Sénégal ci ñi wara ñëw ci ñom waaye bi ñu li ñu wax mise à jour gis nañ ni Sénégal bokk ci kon gis nañ ni dogal la bo xamni bu ferme la ban gis-gis nga am ci ci lool walu wowo waaw d'abord japp né li nga xamné moy crise bi moy crise sanitaire ci la mhm. ñëpp

réew bu nekk tamit yaa ngi am sa politique da jël réew dafa mel ni ñoom ku dul marocain duñu la bàyyi nga dugg déjà mhm. ah, ba pare soo doonee marocain il faut que nga def benn test déjà doogu mën a dugg Sénégal ci boppam tijji na waaye teg na ay conditions mhm. ah, donc réew mu nekk yaa ngi xool naka nga yaakaar ne noonu nga mën a défendre sa frontière union européenne yi tamit am na sañ-sañ boobu waaye Sénégal it am na sañ-sañu ne ku nekk rek noo noo jàppee ne noonu lañu ñu war a doxalante ci diggante réew réew ñun itam ñu jàppale la waaye général ku ne xam na ni doole yemul

mais li ñu war a xam mooy d' abord marché touristique yi moom dafa tëju woon ba pare. Mhm. li ko tëjoon mooy feebar. si mhm. mu toll nii àddina bi yëpp y' a une baisse d' environ 80 vingt pour cent ci ay départ internationaux. Mhm. te fépp la. donc fi nit ñi jublu fi mu toll nii mooy ni ñuy def ba le tourisme de proximité. li nga xam ne moo jëm ci réew yi wër euh, les les pays les pays limitrophes nga xam ne suñu jëlee Sénégal 25 pour cent des arrivées ñu ngi jóge ci pays africains yi wër.

départ internationaux yi dina jafe. Mhm. ñu commencé di concentrer wu maintenant de plus en plus sur l'offre nationale. d'accord def ay aménagements yoo xam ne dina mën a mucc ay mhm. tolloog li nga xam ne la Sénégalais yi bëgg. liggéey ci aussi loolu loolu dinañ dinañ ci dikk euh, ndax boo demee ba koy soulever dafa mel ni am na lu mhm. ci des dinañ dinañ ñëw ci loolu nga baal ma euh, monsieur Kane Mamadou moom jàngalekat la ci université bu Thiès euh, naka nga gisee dogal bi nga xam ni Union européenne jël nañ ko te Sénégal itam fekk si leen ci ban gis-gis nga ci am waaw jërëjëf euh, dañu nekk ci situation bu doy waar muy mbas mi nga xam ne dafa laal wër gi wër gi yaram waa àddina bi yëpp mais aussi yegg ci économie bi yegg ci tourisme bi yegg ci ay relation même sociale donc mesure bi mesure bi dafa nekk encore mesure bu bu metti c'est vrai que pays yëpp ñu ngi xool euh, si retour situation normale bi nan la ñuy def euh, ubbi seen i frontière ubbi aussi seen i aéroport pour que jëflante bu amoon mën a mën a nekk donc gis nañu mesure bi Union européenne jël Sénégal aussi décidé jël réciprocité bi euh, ah, voilà lii lan def ñun aussi nii la ñuy def mais toujours est-il que day metti ci ci ñëpp daal Euh, war nañu wut. buy metti ci ñëpp am na ci ñu muy gën a metti wax dëgg yàlla. waaw waaw waaw dina metti si ñun parce que déjà déjà ñun xam na nañ diaspora yi euh, pois bu mu am si sunu sunu réew fu mu nekk mhm. nii ñoom am nañ ay jafe-jafe yu bëri pour ñëw walla mhm. pour pour mhm. dellu.

mais yaakaar naa ne mën nañu déggoo ci ay kàddu ba euh, en tout cas Sénégal mën a rassurer pays yooyu Euh, ñu génn ci mesure boobu ñu génn ci réciprocité bi. Mhm. d'accord euh, foofu nga daaneele sax foofu laay ñëwaatee ak euh, monsieur Diouf ndax moom kàddu googu di réciprocité dafa mel ni daf ko daf ko nanguwul parce que man defante laa ko jàppe mu jàpp ni mbir mi du loolu waaye man bëggoon naa mu ñëwaat ci li nga xam ni wax na ko léegi mu aju ci taxawaay bi nga xam ni maanaam bërëbu hôtel yi war nañ koo taxawee lan nga jàpp ni loolu lañ ci war a def ba gën a mën a dalal gan yi ci ni ko waxee ci suñu suñu dëkkandoo yi nga xam ni soriwul mu mën a nekk loo xam ni dina mën a juguler euh, dogal bi nga xam ni Union européenne jël nañ ko. waaw d'abord dañuy rappeler ne ci tontu bi nga xam ne ministre bi loolu la def ministre bi waxul Union européenne dafa ne réew. Mm-hmm. réew bi nga xam ne rek euh, appliqué nga ñu euh, benn principe ñun dinañ méngoo ci principe boobu nga ñuy appliqué. Mm-hmm. fii nag ci biir réew mi il faut ñu fexe ba nga xam ne ñi ñi bëgg a tukki ak ñiy joxe offre touristique ak ñi nekk ci hôtel yi.

ba pare demandé ñi nga xam ne ñooy ñi leen di offrir ces services là ñu di ci def des offres yoo xam ne promotionnelles yi mun a gën a adapté wu ak la demande nationale directeur li ngay wax ni mu aju ci sa wàllu communication ak li ma la laaj dafa mel ni bokkul li ma ah. bëgg nga tontu ma si mooy euh, dogal bi nga xam ni euh, wax nga ko leeral nga ko ni du ci euh, réewu Europe yépp la la la la la ñu jël dogal bu ni mel dama ni jeexital bi lan la mën a doon ci suñu réew. loolu loolu aussi bu fekkente ni mën nga ma ko gën a gën a leeral. waaw tontu bi tontu bi moom laa moom laa tàmbalee. Mhm. Euh, jeexital bi xam nga euh, fermeture frontière aérienne tàmbalewul bi Union européenne waxee lii. Mhm. mi ngi tàmbale ba nga xam ne Sénégal jóg na taxaw ne moom tëj na frontière am pour ñëpp ñu jóge ci yenn pays européens yi. Mhm. donc les marchés yi nga xam ne mooy marché touristique yi dañ leen a tëj ëpp na ñeenti weer. kon xam nga njeexitalu tëj bu mujj bi. bëriwul ndax fekk na marché yi tëju na tout à fait loolu dëgg la loolu mooy tontu bi ba nga mhm. xam ne nag kon fi mu toll nii li jar a def te jar a orienté nit ñi moy mhm. sénégalais yi dem xam seen réew. xam seen i gox ak seen. d'accord ba pare service privé bi. Mhm. ñi joxe service bi wàññi njëg bi. d'accord loolu dina dinaa ci ñëwaat dinaa ñëwaat loolu directeur. parce que aussi tëj tëj frontière yi du rek wàllu tourisme la euh, monsieur mhm. monsieur Kane ndax ku ne xam na ni itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu aviation wàllu aéroport ak yooyu ñoom tam ñi ngi ci bu fekkente ni avion yi demul dikkul ñoom tam seen yëngu-yëngu dina am jafe-jafe ndax loolu itam bàyyi ngeen ko xel waaw dëgg la dëgg la euh, affaire bi du du tourisme bi rek euh, transport aérien bi la la jàpp te mu nekk secteur boo xam ne dafa dafa am solo lool te mu nekkoon ay priorité au niveau du Sénégal dañu am aéroport bu bees am ci ay yaakaar yu yu bëri mhm. donc euh, pour sunu compagnie aérienne déjà euh, c'est difficile parce que liaison yu bëri Sénégal la woon ak euh, Europe. Mhm. déjà lolu mu nekk problème bu reuy ñi doon liggéey aussi ci aéroport yi tamit mu ngi noonu bu dee situation bi continuer na noonu euh, dina gën a metti si si ñoom. Mhm. mais aussi bon situation bu ne tamit man foog naa ne solution ngay wut mooy lu ma wax léegi nanu négocier par la voie diplomatique ñu seet nan la restriction yooyu mën a dañee mais aussi nous réorienter sur nos politiques euh, aéroportières parce que nous avons une plateforme sous-régionale. Mhm. et que même du point de vue touristique nous avons un tourisme domestique mais tourisme intra-africain. il faut voir dox Nous, ñu des réseaux des réseaux des ay mhm. réseaux ay des réseaux africains, Mhm. te africains yi dañu war a mën a dem visiter yeneen pays yooyu mhm. yëpp ay opportunité la Dakar ay débee mën na nekk ëpp boo xam ne mhm. ku jógee Côte d'Ivoire wala de Mauritanie wala Maroc nga mën a ñëw Dakar def fi ñaari jour wala ñetti jour yoo xam dina la permettre nga

ba tey euh, cas yi ñu koy dégg jafé jafé yi mu am aussi mi ngi fi ba légui wax nga dëgg Papa ngañ du yomb wayé dëgg la suy taw kenn du fobere wayé am na ñu xalaat ne c'est pendant la crise qu'il faut penser la crise moy duñu tok toog ba mbir mi ne këtt ne jonn té on parle de cent mille emplois téeméeri ñuy nit ñooy liggéey ci mbiru tourisme ci réew mi ñooñu mënuñ tok né dañuy xaar ba mbir mi pare ñu doog xol luñu def légui lañ ci taxaw dañuy de nag la dynamique bi nga avons ne am ci réseaux sociaux pratiquement au plan concret sénégalais nous sommes sur la petite côte au moment où je vous parle commencer à investir les touristiques il faut l'encourager parce qu'il s'agit de nous appeler, nous nga xam ne ñooy liggéey ci tourisme avec toute la chaîne de valeur derrière nous avons ne ñi ñi ci ñi ci aju ci seen qui, bët bu set nous bëri moo tax mënuñ une di xaar mhm. moo tax l'initiative bi ñu c'est pour que ñu bañ a toog ba mbir mi ne kët ne jonn ñu doog a xool ni ñuy def mhm. fii ci Ndakaaru bëri na ci ay restaurants yoo xam ne dañu tëjoon tijji nañ mhm. nit ñi commencé nañ di ci dem d'ailleurs ci fan yu néew dinañ fa dem tamit xool leen xool ni ñu taxawee ndax activité bi ñu ngi reprendre comme il se doit parce que c'est une activité économique boo xam ne papa nga ñi ci aju mhm. dafa bëri li ñu war a li ñu war a xool kay mooy ndax protocole sanitaire yi respecté nañ ko moo tax ñun am na benn guide boo xam ne à partir de la DRT li mu def comme protocole sanitaire jagleel ko ñëpp moom lañ jël def ko outil de communication jox ko acteur du secteur privé yi d'accord d'accord d'accord directeur dinaa dinaa ñëwaat ak yow s'il vous plaît eh, monsieur Kane laaj bi ma laaj léegi monsieur Diouf laay dellu si ak yow rek ndax dina yomb ci jamono joo xam ni feebar bi mi ngi fi jógee gu fi kenn xamagul kañ la fiy jógee eh, pour ñu mën a dundalaat li nga xam ni mooy tourisme domestique bi maanaam tourisme bi ci biir réew mi ak bi nga xam ni mooy ci dëkkandoo yi ni nga ko junjee léegi yow bi ngay daaneel ndax dina yomb ci jamono ji. Euh, waaw il faut que ñu gis réalité bi xam ne entreprise touristique yi fu mu nekk nii danoo daanu mais euh, moment bi dafa nekk moment réflexion ñu war a mën a xalaat def ay stratégie seet nan la ñuy génnee ci situation boobu euh, moo tax ñu yaakaar ne finalement il faut sax ñu gis crise bi comme benn opportunité boo xam ne dina permettre ñu am beneen jéego ci sunu tourisme Ligne ñuy wax tourisme domestique dafa nekk réalité hein. dafa mhm. nekk dëgg boo xam ne euh, dina parce que si pays yëpp fu mu nekk mhm. perspective tourisme domestique boobu maanaam nga daf nekk touriste si sa biir réew. Mhm. moom la ñëpp jël même européens yi fu mu nekk nii moom lañ jël. Et fii aussi commencé nañ lu mel noonu. Maintenant, il faudra que nous accompagnions. Parce que il faut nous diversifier produits touristiques au niveau du Sénégal. Euh, à à àggale daaneelal s'il vous plaît monsieur Kane. waaw waaw man ni man mhm. man il faut ñu diversifier rek euh, produit yi ba nga xamné mhm. dina dina accessible accessible euh, si si si am am bi. Mhm. mais aussi si xamel waaw voilà moom mooy li directeur jërëjëf euh, jërëjëf euh, monsieur Kane Mamadou ñu ngi lay gërëm Pape Mawo maa ngi jégalu waxtu bi dab na ma euh, ma jaajëfal leen bu baax mbokk yi mu nekkoon point de vue gis-gis tey ñu doon waxtaanee diggante Union européenne ak Sénégal ci wàllu dem bi ak dikk bi ci jaww ji ku ci ne am ci dogal boo jël jëm ci sa morom loolee lañ doon waxtaanee lan mooy doon njeexital li nag ci biir réew mi rawatina ci wàllu tourisme ak leneen li nga xam ne yëpp daf ci aju ci noonu àndoon nañ ci ak Pape Mahawa Diouf moom mooy général bu